ñu jàll ci l'observateur li mu xëyee tey jilee Alaaji Malick ci altine bi euh, ci xët wu njëkk wi gis ngeen ko euh, fraude ak évasion fiscale le Sénégal en état de guerre ci loolu la xëyee tey ñu ne nag gouvernement bi gën a dëgëral mécanisme yi ñuy xeexee euh, fraude fiscale yooyu noonu 161 milliards de francs CFA yi rëcc ñu ne ci comptabilité publique ak adoption loi numéro 2021 43 lépp mi ngi ci page 2 bu l'observateur l'observateur ñëw tamit ci euh, membre euh, force spéciale bi noonu lañ leen tuddee ñi bëggoon a euh, cong ay installation yu nekk fii ci réew mi ak ay kër kilifa aljuma bële weesu ñu ne nag jaar-jaaru Pape Ousmane Seck mu ñu teg loxo di ko tuumal mbirum terrorisme fi mu jàngee ay relation ak Ousmane Sonko ak ni mu def ba dugg ci Pastef Pastef bu géewul moom mi ngi naqarlu niñ ko tegee loxoom ñu ne jaarul yoon Euh, ñu ne tamit frère bu na tong ak bu conseil économique social Dié Mbacké Seck moom mi euh, Pape Ousmane Seck moom euh, la mi ngi ci page huit neuf bu l'observateur ak déclaration yu bees yi ñu am ci enquête bi président Macky Sall mu demoon fële ci Tiwaawan ci centenaire dëddub àdduna Seydi Hadj Malick si moom ak kàddu yi ko xalif bu tedd bi jagleel Serigne Maodo Sy Abdou tamit moom wax na président Macky nee na ko bés bu waree taxaw ngir jël ay dogal na ko jël euh, mi ngi ci page 5 bu ngeen ko bëggee liir euh, bu journal L'Observateur euh, bébé ayda coow li rayoon na ci réseaux sociaux yi samdi la ñu teg loxo ca Pikine ki sàccoon xale boobu boobule moom nee na dafa ëmb ñaari yoon mu yàqu amul doom mu ne looloo tax nag mu bëgg doom loolu ba tax mu sàcc bébé Aïda mi police moom moo ko jàpp moom soxna soosule wàlluma tàggat yaram coupe du Sénégal Casa Sport ñu ne doublé historique étoile Lusitana ñu ne coupe CAF ak les vœux de euh, maître Augustin Senghor mi jiite fédération bi ñu jàll ci record euh, beneen journal bi euh, groupe Futur Média di édité li ñu xëy tey jile Eh, ci eh, altine bi record léegi rek eh, Sadio maane dafa mel ni moom moo ci nekk tey jëlee CAF Awards 2022 Sadio bu jaaree ko ci saajo ba ci fédération bi ñu ne dafa mel ni Sénégal moom moo nar a gën a am li duuf ci nag li Bayern 16,2 milliards de francs CFA mooy salaire bi Sadio dem at wu jot. Sadio joueur le mieux payé de la Bundesliga muy ligue fédérale bi foofu ci Allemagne il portera le dossard numéro 17 Coupe du Sénégal senior finale Casa Sport étant étoile Lusitana. Euh, coupe du Sénégal U17 génération foot doublement couronnée mi ngi ci page 3 basketball itam wax nañ ci 2023 mondial bi ak listu euh, fukki gaynde ak ñaar encore un faux bond de Youssoupha Fall mi ngi ci biir record euh, léegi léegi dañuy jàll ci météo express ñu indi ci ak Oumy Samb météo <laughs> météo express te <laughs> sa àq ma dal tey présentation <laughs> wala gis nga Cheikh Tidiane moo xam naa yàkkam di woon na ko tey sa àq moo ma dal <laughs>